damay wax ci ki nga xamanteni ni si mooy Mouhamed Cissé duma ko sa mbokk mi wala dara muy mohammed Cissé ñasen bobu nga xamanteni ni si taxaw ci réseaux sociaux yi lu ko neex wax nan day and ak xale jigen ci façon àndin woo xam di di di jaar ci tour bi. ñaata jeun la fa jënd ma ngi won daral ba gis ne ma bu baax ñaata xar yu ñuul la jënd man mom dama lëndëm bu jare ñàkk julli sa duma julli ñima xam deug xam ne yenn saay ma gëjë julli ay wéri wér waxuma fan de waxuma semaine wéri weeri weer maag yàlla la du seen affaire néew kenn bul julli mais sàmm bakkan na gën sàmm diini suma bakkan mo ma gënal suma diini ndax bu bakkan amu diina do lu mu laaj ba def ko ku gas ma gas ku sul ma sul ku tak ma tak ku ma xam man ma ngi yegg bu baax maa ngi yéeg ci xale yi bu baax di nàmp kooku moom nëbbuma ko làqatuwuma mais dama am choix nit bu demee bay mooy yàlla na ko jar ndax bu ñu lay duma nga xam ne jaroon na ko waaye ñii nii mel ni kir daal luñ suma choix dee not la man personne man dama leen ndakaaru njaay gii laa la wax ku fi am tur am fi xaalis am makkaat boo tëddee koo fi amul su bañee moroomam bu ko dàq nangu ci dëkk bi laa dëkk te damay namp ni tout le monde. man da bëgg ma maa ngi namp maa ngi consulter. lan mooy namp weeni jigéen. waaw ci dara lañ nekk. cheikh bi yow Serigne yow Mara kii. <laughs> xool xool ma fii. kañ nga mos a ma ne la Mara la. mais damay dégg ñu lay Mara. non yow yaa baax na ma Mara. mais man je suis normal person like anybody. Mm-hmm. man maa ngi nii de. d'accord léegi. musuma nëbbatu je suis comme ça. mais DJ. Adja bu neexoon ma wax ko ko konoon coow du jóg. d'accord léegi Cheikh bi. dañuy d'accord mu neex d'accord mu de c'est simple. ñu def benn point fort man daanaan la. yaa ngi wax. c'est des photo originaux. yu yàgg xool leen ndaw si bu takkee jigéen day jël ndaw jigéen bi un mois la sëy bi di durer nee nañu dafa am lu muy def ci seen awra yi jël dara ci deretu ndaw li yóbbu ko parce que avec ses ses affaires mystiques qu'il est en de faire mi ngi nii kii mooy Ahmed Cissé benn mi ngi nii kii mooy Ahmed Cissé xool kii mooy Ahmed Cissé doomeeraam bu mel nii lan lay wut ci suñu société sénégalaise bu baax bii te tëjuñu ko Ahmed Cissé beneen a ngi kii mooy Ahmed Cissé ba léegi gis ngeen ko day takk jigéen ñi nax leen lekk seen xaalis nax leen jël dara ci seen awra yi jël seen ndaw yi ba tey Gàmbi dañu déggoone dootuñ ko mayati jabar moom moom moo commandité viol yi kii mooy am Cissé ba léegi ak beneen jigéen xool leen ko day takk soxna yu baax jël seen ndaw jël deretu ndaw li am loo xam ne daf ko ciy jël mu dem ak moom kii mooy am Cissé mi ngi nii ba léegi kii la mujjee takk xale bii xale bii nag moom daf ko yóbbu justice parce que kii waa këru kii dañ ko yóbbu justice ndax dañu am fulla mi ngi nii kii mooy am Cissé xale bu ndaw Il marie des multiples de femmes et les manipuler et prendre quelque chose qui s'est ay sexe il l'a fait à maintes reprises léegi man dama au Sénégal yéen ak ni ngeen ak ni ngeen di am quelqu'un qui a laissé son pays djegi frontière dugg ci Sénégal di def ay ñaawteef ne di bu démé ci télé yi wax ay waxu wax ay wax yu vulgaire ci télé Sénégal yi ñu micro la personne la plus vulgaire ne se reste que vulgarité amna lo xamné man ko ci télévision nationale muy ay wax damay tëddee waaw man damay dugal ak damay génneeg waaw man damay daf li yeg waaw ñun dañuy ñamat ñun dañuy màccak yooyu lay wax yàlla ngeen xeexal surtout seen réewande gi ngeen réew ci wàllu bokkaale yàlla wala bidaa foofu laa jëm ci yéen te ñi nit ña koy def dëgg-dëgg da dem yàlla weer leen ci àdduna balaa ñoo dee ngeen teg seen bët xam ne ñi ay fenkat lañ ci ginnaaw mi ngi naan ay waxaabis képp mooy lan muy kuy woote alxuraan ak sunna njaaloo baaxut nan jaamu yàlla nan topp yàlla ndax Ahmed Cissé li muy def ndax jaamu yàlla ma leen laaj taxaw carrément ne day tëdd ak jigéen jaar ko ci ci ci digg ba ci comme ay jaar wu bon. tey kii tey mu am ay taalibi am ay nit yoo xam topp nañ ci ginnaaw démb mu toog fii di wax di di yabal ay doomu aadama pour ñu xeex ak ñi nga xam ne dañuy wax qaala allahu qaala rasul sallallahu alayhi wa sallam léegi mu wax ko démb te ba mu ko waxee loolu ci kaw mu la këpp ndax ba mu demee ca fële mooy li ko gën a may tur sax mu gën a siiw nii ba ñu bëri xam ko xam naa ay taalibeem rek ko xamoon li ko gën a may tur mooy ci affaire politique ba ñu ko dóoree ba ko waa Kër Baay Ñas dóoree ci comme affaire politique mu ne nan wooteel diw ñu la ko doo wooteel ñu dóor ko kon yéene nekk la borom a cay fanaan kuy xeexal yàlla sa bopp ngay xeexal li ngay def ci sa kaw lay këpp may laaj ci vidéo bi vidéo boo xoolee ñu ngi tëgg sabar di lëmbal ay góor ci tuuru Serigne Touba ma ne leen waa Serigne Touba mag yi mu doon àndal te loolu ab question la sax mag yi mu doon àndal ndax ñoom kan moo ci d'accord a fekk kii sëriñ doomu sëñ sëñ kii sëñ si non du sëñ siidi doomu sëñ fàllu sëñ kii daam at daxawma bu leen ko fàtte ne nee na wanagu yàlla bu leen ko fàtte bu leen ko fàtte amul lu gën a ñaaw lu wax jooju même mag ñi bu doon ñoo fi indi fecc yi du dëgg du diine saboota yàlla la te saboota yàlla fowee diine ku ci dem ba dee yee ak seen mag yeneen ànd dem safara bu len fonto nit ñi ci diina yalla gi ngeen fawé l'islam l'islam yalla ni ngeen tok di défendre sen tarixa yi wax yalla non lañu togué di défendre yalla ak bi yenen tam sallallahu alayhi wasallam kep ku jël lu bon lu salté lo xamni ko ko gis ni cim xép la nga duggal ko ci diina gi ñun dinañ ko wedd dinañ da ngay fen lii l'islam nekkuma ab dahiya néew mu ni ab oustaz bi jangale la néew dara ben boy la bo xamni ñu takuma ma jaam comme ni ma leen ko waxon muy mbacke mbacke takuma ma jaam waa kër Serigne Touba takuma ma jaam di ma nax ci tuuru Sëriñ Tuubaa ma leen doon bayal tool bu ma ci deewoon safara laa jëm di bokkaale yàlla borom bi subhaanahu wa taala ma dem ba taw tawhid leer ma mu wóor ma ne sëriñ ba da doon dul day kàcc moom amul dara àjjana bàyyi Sëriñ Tuubaa amul dara àjjana Sëriñ Tuubaa nañ koy atta yu ma xam tamit atta yu ma xiyam ma koy tool ci gratis bàyyi sama ndey bàyyi sama baay sama caaya di teeñ fayul taxi fayul dara kooku du nit ku baax nit ku yées la li li yàlla suñu borom wax mu ne waa safara dan naan law cey bu nu bu nu yëgoon boobu réccu na nas maxaw ñuy déglu muy lan ñuy déglu al alquraanu karim di déglu waxu yàlla mooy ndax yàlla moom moom moo ñu nettali Muusa kii euh, nu mu tuddati Ibrahim di jéggalu baayam yàlla na ko doy na Ibrahim sa baay safara la jëm kon yàlla moo ñu nettali bu fekkoon te ñi ngi déglu alxuraan ne Ibrahim kat amul mën ak tuyaaba mënu dugal bàyyam àjjana mënu dugal kenn àjjana ndax bàyyam dafa weddi yàlla kon ku taxaw fii ne la Serigne Touba day dugal nit àjjana am na mën ak tuyaaba bu mu mayee day dugal li ngeen yàq yàlla bon na yées na ki fi toog mooy li ma leen wax barki démb ki fi toog naan dafa botti yàlla ba ba ba ba daan yàlla ku fi taxaw ne dangaa daan sëñ Touba botti sëñ Touba ngeen ne wax ji dafa ñu yàlla mi bind sëñ Touba bind ndayu sëriñ Touba bind alaaji Malick bind ndayu sëñ alaaji Malick bind baayu alaaji Malick bind baay ñas di dogal doon buur doon càppaacoli ku fi am tey yàlla borom sax moo la jox ngeen toog yàlla azza wa jalla lu leen yàq ko Sénégal lu la neex demal ca marché ba lu la neex wax yàlla du mujj fenn loo wax ci sëriñ Touba ñu rey la loo wax ci alaaji Malick ay yi kase la fi ngeen teg sëñ Touba ak alaaji Malick egguñu fa du dëgg ay fenn kase la ay fenn la saxaabatul kiram ñoo gën alaaji maalik gën ndayu alaaji maalik gën bàyyi alaaji maalik gën maa faa maa faa waddu wele dama ni leen Aboubacar Siddiq moo gën ndayu sëriñ Touba gën bàyyi Serigne Touba gën gën Mamour Anta Sali gën bépp xeetu cosaanam ndax ñooñu yàlla moo leen garanté yàlla wax ñu ko ci alxuraan duñ jël xasaayatu Serigne Touba wala xasaayatu Maodo wala xasaayatu Bañas jëkk ko weccoog waxu saxaabatul kiram ñun bu ñuy jox ay toor ñu xool ñaari wax du dëgg ñaari wax ñëw. ñu waroo bin nii wax du dëgg dañ naan waxu Serigne Touba bi moo dul dëgg wala waxu Alaaji Maalik moo dul dëgg wala waxu Baay Ñas moo dul dëgg mais du waxu yàlla azza wa a ñëw wekki waxu yàlla ne waxu yàlla du dëgg wax Serigne Touba mooy dëgg waxoo leen dëgg kataballaahu yi ay feni kase la barke alxuraan bambaraw na yeneen du benn dëgg ay feni kase ku ko gëm ab kaafir balaa maa dee bu mag boobu toog naan képp ko fi woote ci dëkk bi lu wuute njàngale ak Serigne Touba nañ toj sa kër lan mooy wuute njàngale ak Serigne Touba Serigne Touba kataballaahu yi Serigne raw na yeneen du dëgg ay fen la loolu mooy mooy mooy ku ko fi wax ñu toj sa kër toj leen këru nit ñi ci tawhid yàlla dana leen alak te yàlla mi ngi leen ñu koy gis ndax yéen a ngi wax ay wax seeni wax di waroo di fenn ay Serigne Touba mooy fal di folli Alaaji Maalik mooy fal di folli kenn falut folliwut bu dee ñooy fal tamit falal nañ dëkk bi ñuy yées ndax dëkk bi yéen ñëpp bokk ànd di jooyandoo wallaahi seen man Macky Sall moo ma gënal seen Serigne si buñ bëggee yërmande wàcc si yàlla wàcc si ñun la góor ga waxoon góor gi nee boo xëyee li leen indil problème dépense yëpp soxoor kasel nee na boo xëyee dépense te la doom ngay uti dépense nga gis sa morom di ut dépense ñaanal ko ko paas yéen ñaanu naa fekk yooyu nag ñaan yoo xam ne eggut fenn yaa ngi koy ñaanal naan kii yàlla na dee yàlla bu nga ne ko yow na nga am dépense yàlla na boo ko waxee yow yàlla da la koy defal te loolu sax dëgg la ndax euh, yent salaasam dafa ne comme nit booy ñaanal nit mu dëggu ci yow lan koy ñaanal malaaka yi da naan amin di la ko ñaanal te malaaka bu la ñaanalee da lay dal ah bayloo nit ñi ci gratis doo fay doo fay taxi doo fay doo fay liggéeykat ba essence sax doo ko fay ndax essence ñay yor essence ñoo say say taalibe la ñi nga xam ñoo jaay essence ñooñu say taalibe la téer ba sax doo ko fay ban njariñ la sëriñ si am hmm? léegi après yow essence boobee da dem ca taalibe ba eh, kii de ci sëñ Tuubaa xaaral liggéey ci sëñ Tuubaa ñëw defal duyal la sa oto essence ba ngay kii ban économie réew mi nga yokk léegi essence boobee boo fa jugee yow sëñ bi téer ba. jaaykatu tisi ba moom gañe laa ba gën a baax xaw ma seen tissi yu diis yooyu man moo ko sol nag gañe laa neexuma ndax dafa dafa dafa dafa dafa kadam quoi dafa. soxna diw mu mum sëriñ diw barki Demba Ndiaye maa ngi ko gis mu ngi toog ci siège oor laa xaw xawla wala quwwata illa billah sëriñ ba ci boppam moom it ma nga jël daaya def ci or ah léegi dem ba takk ay kanam gi ay or muuruwul. té bu dé ci Cheikh Ahmadou Bamba mom du yoonu Serigne Bamba Serigne Bamba pendo Diop bamu ñëwé ci mom muy wasiyatu pendo Diop mi ngi fi jàngal leen nit ñu njub waay mu ne ko pendo deel muru deel def nii mais muru wut ma nga xéssal ba wéx tal Serigne bobu sangam sangam ta dee noonu ba jabaram don ko ray na nit sul ko ba tay kenn waxu ci dara ay bandi ay maf ay ño xamanteni ni ñom ño yees yées firaaw na ngeen naan ay Macky Sall yéen leen yapp Macky Sall nitu aduna la mom aduna aduna moko ko ay aduna ay kiiw ak yooyu mais wallaahi li ngeen gën a ñàkkal solo muy ñeneen di ay pàkk àjjana moom diggu leen pàkk àjjana moom affaire àdduna dëgg la ñoom moom wax dëgg yàlla ñu ngi ci seen topp seen bànneexu bakkan yërëmun askan wi ànd ak tubaab bi saraxe ñu waaye ñoo gën seen sëriñ si ndax moom wootewut ci ay diineeg ay affaire moom gëmut carrément nëbb ko mais seen serigne si dañ leen di woo ci diine di leen nax yowmal xiyam ngeen dee am problème ndax fii ñaata patriote ñoo fi nekk di woote naan ay 2024 ak diw sàngam fallu ñoom avant 2024 ñu dee dama ni leen kër googu nag mooy këru dëgg loolu barke alxuraan ngeen siwaarale ko rabbil kaaba yowmal xiyam ku dee da ngay réccu da nga naan man suma ma yëgoon gën a yokk samay jaam yàlla serigne touba ak Alaaji malik ak bañas Ñas ñooñu li ñuy jaam yàlla ñoom seen bopp dooyu leen ñoom ba nii naan dañ ciy lijjanti keneen ñoom seen bopp lañ tal yowmal xiyaam taluñu leen ku jaamut yàlla sa problème la barke alxuraan amul kenn ku fay dem yóbbaale ba naan la may yóbbaale dafa bari bari goo xam ne ndax yent saala salam li mu jaamu yàlla sëñ Tuubaa da ko xaaj bay jaamu yàlla Abubakar Siddiq taxawal diine ba muy taxawal diine sëñ Tuubaa daa am allah ji maay daa am da ngeen di fen rek naan ay sëñ bi buñ eggee diine buñ eggee diine Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ñooñu li li ñu fekk ko di xeex Abubakar seen alal seen lépp yéen da leen nettalu dund saxaaba yi moo tax moo tax ngeen ku tudd saxaaba yi tudd sunu maam yi yéen ñan ngeen yàpp jàngi leen seen diine ngeen jàng ñan ñooy saxaaba du kiram abu Aboubacar Omar Aliyin bind ko ca kaar yaag yooyu da ngeen di jàng seen histoire ñan ñooy ñii lan lan def ci lislaam lan la leen lislaam jaral ngeen jàng seen bind mag yi lan la seen maam maam yi defal ci ci lislaam li ñu defal seen lislaam yépp ay waxi jombalaate kese ngeen di wax kii benn malaaka ba mu juddoo dafa téem di xool aras ah benn bis mu dee dekki benn bis mu tëb naaw yooyu la ngeen ñuy wax waxoo leen ñu li nga xam ne yëfi nit la mais saxaaba yi dañ lay nettali yëfi nit ñooñu dun moromu seen maam yi dañ leen a fen a fen a fen a fen ba wax leen loo xam seen histoire yoo xam ne ndax julli ci géej gi rek maa ngi déggaat kenn ñëw nee na ba demee bureau ba ca ndaw Maodo moo taxaw ma ne ko est-ce que sañ nga ko kay comme te ku mën a toog jékki-jékki rek ne sama maam moo taxaw man su ma neexee sax ma ne bureau ba ndaw sax sama maam moo fa taxaw sama maam Duudu Ndumba Jóob alxuraan tamit ak mooy catalogue doomu aadama bu nekk muy ku ko gëm Aku ko gëm ñepp yalla katalog na len catalogue pour nan nga mëna doxé ci aduna pour nga normal muy alquran alquran bobu non moy catalogue bi nga xam mo len xamal ni yalla ya sun borom xamal nañu ne kim roy lo moy muhammad alaihi wasallam kon roy muhammad alaihi sallam ko fay duggal ci bi sa catalogue mi alcorane karim sallallahu Alaihi Wasallam bobu ngay roy koku non mom mo lay jox ay pour nga nek nit mu doon psychologue sallallahu wasallam bobu non mom mo lay xamal yow ya doomu adama bi xolal tay exemple pour nga dund dund bu neex rek alxuraan ñëw jox la benn solution li moy jangale diine mbé comme pas ay seigne touba naaw na ji Maalik naaw na Baay Ñas kii na joxoñ na kii mu tàkk seigne bee dem na tal ay marché seigne bi soppi na ki ay xaj ay waxi dof la ngeen ñi wax ñu njariñ même bu doon deug sa amul njariñ